teen waaw ma ne lii Dubaay la mën kay ñoo ngi nii ñëw nañ Sénégal xoolal eh, jëm ñaajo <laughs> kay jëm ñaajo kay jëm ñaajo moo mën kay eh, jëm ñaajo ah eh, président Macky Sall non dama tiit ba tey dama jombi ba tey jëm ñaajo gëmewuma ko ba tey sa sa ticket bi wadd te ticket lañ lay lii boo demee Tanzanie mënoo koo fa gis boo demee Côte d'Ivoire mënoo ko faa gis lii boo demee Gambie. ñoom mhm. seen bus sax bus bu assuré la. ci Gambie yi dañ naan la aw aw dañu ndokk eh, eh, <laughs> mu sell ñu BRT. indil ñu teer ñu ne ñu teer. man ba ma demee si stade bi gëmee ma ko di. gisoo suñu stade bi mu mel te multifonctionnel la. man damaa ciy basket handball volleyball dafa defal euh, mbër yi seen terrain à part buntu tëj jël buntu bi lii de Dubaï la am. lii de mosuma koo gis ci dëkk africain yi. waaw tëj di. barki alxuraanu karim président Macky Sall ku ko newati liggéeyul sama bakkan laa lay jaay. nen. Euh, lii. Dubaay la. mën kay. ñoo ngi nii ñëw nañ Sénégal. xoolal lii. eh waay jëm ñaajo kay. waaw yow mënoo nekk tey dañu <laughs> jëm ñaajo kay. mën kay. Eh, jëm ñaajo. ah. yii eh, président Macky Sall non dama tiit ba tey dama jombi ba tey. jëm ñaajo gëmëwuma ko ba tey sa sa ticket bi war na. xaaral ma foofu lii boo demee Tanzanie mënoo koo fa gis boo demee Côte d'Ivoire mënoo ko faa gis lii boo demee Gambie. ñoom mhm. seen bus sax bus bu assuré sax amuñu ko ñoom teer la. yaa dugg ci Gambie yi dañ naan mu sell ñu BRT. indil ñu teer ñu mu indil ñu teer. man ba ma demee si stade bi gëmee ma ko di. gisoo suñu stade bi mu mel te multifonctionnel la. man damaa ciy basket handball volleyball dafa defal euh, mbër yi seen terrain à part buntu waa ñu tëj jël bi lii de Dubaï la am. lii de mosuma koo gis ci dëkk africain yi. waaw buntu tëj di. waay waay. barki alxuraanu karim président Macky Sall ku ko newati liggéeyul sama bakkan laa lay